bàyyam moo fi nekk imam macha allah kii nag mooy doomam mais macha allah moom mooy war a nekk imam bi. incha allah yaa am imam dafa jëfe de. alhamdulilah ngeen baal baax rek. gars yi nag dañuy for for la mais kii moo war a nekk imam bi. alhamdulilah ngeen baal baax dëgg moom. kenn moomu ku laa ilaha illallah. incha allah kon asalaamaaleykum mbokk yi. maa ngi taxaw ak Mouhamed nag Dakar am na ndam waaye rawatina waa Seera waaye nag bala ñoo dem sega mbokk alxuraan la foog ma laaj waaye aaya ah incha allah aja aja mbokk yi aoudu billahi min asheytan irajim bismillahi irrahmani irrahim واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ما شاء الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو ما شاء الله ñu doon ko trophée bi incha allah. jërëjëf. allahu akbar yàlla mooy yàlla mooy kër yàlla mooy kër. gis la boo xam ne dañ la ko jox barkeelu la. wala yàlla mooy kër lii tamit téere la boo xam ne daa dajale ay runge alquran karim ah Mbacké Sylla moo ko bind na ko liir baax. waaw su ci ñaar la ñu si dox. tamit mu bu rëy moo ci nekk ah incha allahu rabbi ngir nga yor ko mu gën laa jàppale ci jaamu alxuraan lii tamit ay écouteur la ak montur ay pot aja su rafet la ah macha allah ah macha allah lii mooy médecine wala ko médecine waaw dee si jàng ko ñaan incha allah aja montur aja kon pour moo def aja bisimilah waaw yàlla ko yàlla barke amiin Seras bi tamit teral la ñu xam ku fi ñëw dañ lay teral dañuy dem ci xar yooyu mu tànn xar bu ko neex ma fay macha allah kontaan nañ kontaan nañ